asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu Sané Be ñoo ngi nuyu DMD 18 ñoo ngi nuyu Serigne Abo Fall ñoo ngi nuyu mboolem ñu nekk ci biir Urasul Irada bi Babacar Mbaye ak kenn daal àjjuma ji nag dañuy xaw a galfan moo tax daanaka du ngeen ñu dégg ndoxum Tuuba moom. forage yaa nga tàmbale woon ca Senghor hmm. li ci Abdou gas nag daanaka ragal naa ne ku gas lu ni toll amu ci Abdoulaye Wade ñëw topp ci Macky Sall topp ci mbuur benn forage sa koy doxal Gandigaal ak fu ñuy wax kër Ndeene Senghor fu <coughs> ñuy wax sañcaan ci riir <coughs> fu ñuy wax sañcaan tukkulóor fi ñuy wax euh, kër yu gar fi ñuy wax ñorox mboot fi ñuy wax ngëriñ ciréer fi ñuy wax ngëriñ mbambara ngëriñ googa ca yoonu ngappru ñooñu ñëpp benn forage doo nga leen di joxam ndox mooy forage bi ci sama gannaaw kër ci gaal waaye ndoxum Tuubaa moom damaa yaakaar ne ah xëy na bu yowmal xiyaam de bu melee nii moom dana neex lool waaw bu yowmal xiyaam melee nii addina de moom murit moom bu soobee yàlla <laughs> day ndaataatalax ndax itam dëkk ba am fanweeri fan waa se mënuñu amam ndox mu ne si koo gis fenn boo waxee ñu ne Tuubaa dañuy fay impôt ñun Gandigal dañuy fay impôt tey fayam ndox man li nga xam ne moom laa mënut a nangu mooy lan moo tax Tuubaa duñu amuñu compteur di fayam ndox lana tax lu ko waral ah sëriñ sa dëkk Touba de ku ci génn Touba foo am kër da ngay fayam ndox boo demoon Colobane kër sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma day fayam ndox ca Ndakaaru boo demee Sicap dafay fayam ndox soo ñëwee Mbour day fay ndox soo demee Fatick amoon na fa kër day fay ndox soo demee Kaolack amoon na fa kër day fay ndox ah waaw keneen noonu keneen noonu te ñoom sëriñ si am na ci ñoo xam ne am nañ kàttanu gas forage bënn ko muy dox normal ñu mën ko alimenter ndax sëriñ sax doomi sëriñ Saliou a ngi koy def ci réew mi fu ne dem na fa bënn fa forage dëkk bu mu am bënn na fa forage yor ndoxam boppam yor courant boppam te kenn dong la ah waaw te di sëñ Tuubaa yi dajaloo biir Tuubaa ndox mi te leen ticc taalibe nee nañ dañ fay ko ndox sëriñ si nee nañ gouvernement bi war a defar ndox mi ah ba noppi am ci ñoo xam ne ñu ngay ut nag seeni entreprise yi jaay jaay jaaykati ndox bu gouvernement bi defaree defar bay bëgg a dee ñu dem fab ay béton ak ay doj ak ay brique daal di sakk waa ni tëj ko pour bu màggal gi jotee ñoom ñu jaay am xaalis dañu wax kon nañ ko waxte dee loolu moo fi nekk ma ne bu fekkente ni kay ñi gouvernement baa ngi defar waa dëkk ba yàqi dara du sotti waaw bu ma gisal dee defar te am ñu ne ca biir dëkk ba yor seeni usine ndox di ko jaay ànd ak ñi lukkatoo Euh, yii forage ñu tëj leen yii forage ñu bañ leen a tëj taxawal seeni camion di jaay ndox mi man de kenn yaakaarut ma dem Touba ñi di ma jaay camion am ndox ne ma wuyoo dëkkaloo fi moo tax dañ lay jaay ndox te waa Touba du ngeen fay ndox fan ngeen ko teg dafa am loo xam ne lii de yàgg rek loolu ma wax naa leen ko ba tey àndu man de ànduma ci te ànduma ci ëllëg dëkk bu ma trois millions de personnes nekk ak seeni nawle ñoom doo am fanweeri forage ak nangam ñoom ñëpp taxaw ne dàqu bi ñoom gouvernement benn koy fayal ah, ku deful li naw lay def daal loo am da ko war a man loolu laa gëm nit ki nag ah, wax dëgg yàlla xam naa ne daal am dem géej moom neex na lool ab sa sab na lool ginnaaw dangay am fanweeri forage te doo fay Ah, ah la xam doy na ndoxum Tuuba kay moom bu leen ci tuddu gouvernement benn ñi koy jiimit mënuñu ko dañuy wax rek Ousmane Sonko ñii mënuñoo rek la ndoxam Tuuba de buñ demoon jëli Lac de Guiers ba indi ko Tuuba te ay machine di ko root di ko raffiné di ko segg di ko jox nit ñi nit ñi mat trois millions di xab-xab yi root guddi ak bëccëg ku nekk farank lay na bamba ji bamba ji bamba ji bamba ji bamba ji bamba ji ba doo fay ndox ah du yaa jënd diwlin ci bitig bi di ko fay ah. yaa ngi jënd ceeb ci bi di ko fay lu lépp loolu day jënd biir souvent da nga koy fay ndox mi ay machine di ko doxal ñu def ci ay millions yu dul jeex raccordé leen ay teew ba mu dikk seen i biiri kër indi leen ay robinet ngeen di sotti guddi ak bëccëg yéen waa Touba ngeen du ngeen fay ndox ah kon baax na bu leen fay ndox toog leen foofu bañ a fay ndox rek ba xam ndax loolu ndam la wala ndax du ndam saa maam demoon na géej rek damay jalgati loi li ñuy jaay waa réew mi yëpp man dañ ma koy jox ci fa force te du ma ko fay te bu ndox mi ñaa manqué ngeen di kaas te bu màggal gi jotee am ñu kompolo tëj waa ni yi ñuy sakk ko yii yi yi travaux dañ koy tëj taxal fa ay citerne di root ndox mi di dikk di ko jaay taali bi suñ tubaay ngeen dee si ko wax ndoxum tubaa moom yéen waa tubaa yéen ko yàq du gouvernement am Macky Sall te Ousmane Sonko ñoom mënuñu ci dara feeg fa leen compteur yi ndox yii yor ay employé yu normal di leen fay weer am ay fond de caisse di fay courant normal jënd seen i groupe di def entretien bu pompe jeex bu pompe kii jënd waaye yow si pompe yàqoo ñu ne dem leen Touba ca kanam Touba ca kanam Cheikh Gueye day duggal mille francs ca Gandigal Amadou Gueye duggal mille francs ca Njaarim Cheikh Diop duggal mille francs ca Ndakaaru yéen ngeen toog Touba nit ñi ci mi dajale dajale alal di indi <coughs> yéen waa Touba sëriñ si sax yéen a leen gën a fort <coughs> yéen a xam ngeen yéen gën a forcé nit ndax dëkk Touba rek sax ngeen tege ci kaw taalibe yi ci des léegi ci suñ kaw ngeen di tege ba faaw ah loolu suñ Touba santu ko kenn bindu ko fenn waxu ko fenn yàgg yàgg nag dana deñ man moom ndoxam Touba moom mënuma d'accord man nekk gàddigaal di fay ndox ba toxu ji Touba ne duutuma fay ndox fan laa ko teg lan la lu tax duma ko fay ci ban kuus ah loolu moom mu ci kenn tuddee gouvernement gouvernement bu ko fi ji ma defar itam te mënu régler sëriñ si normal ñu bàyyi njuuj njaaj gi ñuy def di tëj forage yi jël camion ngi ndox di ko jaay ñii di jaay seen usine yi ndox di maral jullit ñi di leen woo ba noppi di leen maral ñi nga nga ka ñëpp fekk bawu leen ko li ngeen bëgg du ngeen ko am te itam ci coow rek ngeen di dëkk mënoo ne nag man ngaa atte àllaaxira te àddina tëra ku tuubaa ta lijjanti nooy lijjante yomal xiyaam muriti ci àddina bi yëpp mënoo mbaa boo ko mënee kon li nga bëgg a def fii defuloo ko taxaw leen ci Tuubaa mu tege ci yoon na taalibe yi fay ndox mi mooy dëgg bu ngeen deful bu ngeen deful looy da ngeen di seen bopp dong waaye du sotti xam nga boo waxee ñu naan sëñ Tuubaa nee na wam nun alal ahli bi ma in jaar yi si ngeen xaaroon yàlla mu ci asamaan da ngeen di ami forage ba ba ba yow mi diini ah sëñ Tuubaa ñaan na ay forage am ndox muy daw Tuubaa waaye luy daw lu nekk daa am lu luy daw lu nekk daa am lu koy dawal bu ma jëndoon oto bu bees peq jox ko sëriñ du euh, euh, ko moom moo ci def gasoil di dawal oto bi dox doxi soxlaam du wax na yaa ma jëndal oto yaa ma jëndal gasoil dañ waxante li war a mën a nekk waa jile wam nun alal ahli la yàlla la suñ tubaa ñaanoon bi maa waaw na may waa tubaa ndox muy daw waa ndox mi bu dee daw te du du dex guy wala ngaan lu may ay forage la te ndox mi daa am lu koy dawal ba mu dikk ba ci seen biiri kër yéen daal yéen daal dañ leen di toggal ba mu ñor ñi ngaa ngi leen ngeen ngaa ngi dugal seen gémmiñ ngeen ne pat ne sànqamil ma waaye du ngeen ji ma nag na liñ leen toggal waay nañ seet nag yàlla ah moom nun alal ali bi ma in moo waral Touba am fanweeri forage di benn dëkk moom nun alal ali bi ma in jaari moo leen ko may te des na kat balaa ma in jaari dikk dex gi daa wala ngaan ba foofu ñaan gu nangu la waaye tax gi boo wala ngaanee ba foofu lay séddale ndox meeg la cay liggéey ma ne da ngeen nag jaam man man ngeen am ay conducteurs yi forage yoo xam ne eh, dañuy eh, dañuy xëy di liggéey ci seeni forage ba jant ba seen bi du ñu lekk du ñu naan ah man ngeen am maqaama moo xam ne at mu nekk gouvernement bi génne ay milliards dajale ko di fay ndoxam Touba di réparer machine yi euh, Touba ah di répa di réparer robinet yi Touba di fay employé fanweeri forage forage bu nekk amub conducteur ah lépp dox. lu yàqu ngeen teg ko fa naan nañ ko jox wóor de gouvernement ko def te ñu dong ñun murit yi dong nekkuñu Sénégal te moomu ñu nag dëkk bi waaw moom ñu dëkk bi kat dañ fee nekk ak suñuy nawle nit ku baax dangay xool ak nawle man fi mu nekk nii li ma leen di wax ne Cheikh gi nee nañ amu moom xel waaw aw moom xel ndax damaa mënta naa feq dëgg doo nga laay wax man bu ma gisee sikk fa sikki sa nekk laa joxoñ ne fii la gouvernement bi fi nekkoon ci problème mu ndoxam Touba gasi forage dong man nag waaye weer wu dee mu wër dëkk bépp ngeen di xal-xal yi muy wàññi ay millions din ko fayal kooku mënut a nekk gàddigaal gi dañuy fay mètre ki bu juróom fukki dërëm kees gi ñaari kees la am keesu hydraulique ak keesu forage bi bu paanee ñoo koy defar lu ci yàqu ñoo koy def te suñu poste lañ koy génne weeru deñ toll suñuy facture ñu fay ko ndax bés bu ñu noppee fay facture yi forage bi taxaw te nun buñ bañ a fay suñuy facture forage bi taxaw sañu ñoo kaas yéen tubaab ne ngeen du ngeen fay facture yi si ndox mi dee wala ngaan ndax suñ tubaab moo ne wam alal aali bi maa leen jaari wam ndox mi daa di wala ngaan ba suñ biiri kër ñuy sotti xal-xal yi duñ fay dara ah bismillah addinaa ngi seen camp danan ma sa am président boo xam ne ni sax géegandi gàl lay mel ne nag léegi dem annaasu sawaasiyatun ka asnaanil must bu ngeen fayul seen compteur yi seen seen seen si xam nga fii Sénégal buur rek ko mën a yore waaw fii ab gouvernement mënut a yor réew mi ndax réew mi mooy gouvernement bi day bëgg a falu mu mee kontaan ci kontar la te bu ñu la kontaree doo doo yëg da nga leen di fekk ci lu dëgg te ñoom danañ xam ne lii nga leen fekk ci du dëgg waaye seen force seen force yëpp mooy dañoo bari di la loo xam ne eh, kenn sañu ko dafa génne Serigne Touba bi nga xam ne musta rootlum ndox ci teen bu mu gasut dina sotti am ndox ba weer bi dee ñu ne ko da war a fay mu ne fayuma waaye xam nga ne Serigne Touba def loolu moom Bàmba ko fi rek ngeen nekk fi ne ci leen neex loolu dong la man nag dama leen koy wax yi ñëpp ngeen di ko dégg waaw Serigne Touba musta root ci teen bu mu gasut ndax nee na dërëm ba gas teen ba xaw ma ko kan la yow dugg yi defe naa ne war ngaa mën a moom ma ñoo bokkoon benn néeg Mamor Fall doomi euh, bàyyi bàyyi Basiru Fall moo ma yar maa dëkkoon ak moom Mamor Fall moo doon rootal ko indi njaareem ñetti ati yàlla ba ba ba teen bi bënn ba quatorze ba teen ba bënn ñu wax mu ne du ma root mukk ci ndox du ma root ci teen bu ma gasut waaw koo xam ne dangaa waxoon ne doo root ci ke teen boo gasut léegi nag ay suñu tubaab bi nekkoon dina nangu gouvernement bi jël trésor gasal ko forage du ko def day bañ danaa xamu seen xaalis fu ngeen ko jël du ngeen ko fi def léegi dem ba mën a jël keesu buur ñu gasal leen ci forage seen nawle àddina yëpp dajaloo ak seen seeni impôt ñu gasal leen ci ay forage leen li ngeen war a def ba mu egg mu des ndox mi daw ngeen war koo fay ngeen ne du ngeen ko fay xam nga ne ku yaakaar koo xam ne daawul root ci teen bu mu gasul soo dee root ci ndox mu ñëpp bokk nga ne duma ko fay dangay wax ne murit nga waaye tegu ko fenn sunu murit gii sunu bànneex dong lañ ci topp te nag du wéy yàgg-yàgg bu ma deewee te soppeeku it sama band yi dana fi des te da ngeen ma se dégg ñu ne sax gi gandigaal waxoon na ko tubaa mun ta toll ni ndakaaru ndakaaru fayam ndox Touba ne du fay ah bu ñu jëlee Lac de Guiers tiwo di ko gas ba ne ko duut Touba def ci ay mili mili mili mili tasaare ko ci dëkk bi ba mu daj machine di togg ndox mi di ko di ko raffiné ba ngeen am ndox mi ngeen bëgg ngeen ne machine boobu su paanee gën a maat moo koy defar ña fay liggéey bu fa bu gën a maat mais kon da ngeen di jël nag nguur gi ngeen yor trésor public ngeen nekk buur yi àtte ci réew mi waaye li ngeen sañ yéen gouvernement bi sax sañu ko ñi ngi wax naan ñii sàcc nañ lii ñii sàcc nañ laa ñii tabax nañ fii ñii jël nañ lii mais ñooñu dañuy nëbbutuy jël ñii jël ci loolee nag te ku wax ñu ku dañuy jël la ma ne kii sàcc yi nëbbutoo kii siif duñu benn fay leen ndoxam tubaab yi su ngeen bëggee ndox mi dox su ngeen ko defu tib yàgg yàgg ren di sax gi gàndigal waxoon maa ngi koy wax nag depuis juróomi at dëkk mun tamat trois millions de personnes yore ay forage ay nit di ko kondiir nit ñooñu kenn embauché wu leen kenn du leen fay waa dëkk bay naan ndox ma te duñu fay at mu nekk nga woote ñaari màggal daaru xudóos ak màggal gu mujj gi màggal mujj gi trois millions dana nekk Touba yu fa dëkk trois millions fekk leen muy six millions ñuy sotti xam-xam bi ba gi daagu ñibbi da jaay ma nga di dem kenn du la juuti jaay yëfe fi galas di nekk la woon ndax dëkk ba réyul noonu waaye leen dëkk ba dafa rëy xalaat nit day xalaat alhamdulillah wasalaatu wasalaam mu ala rasulillah الطريقة الصوفية المريدية mbokk yi nekk ci rasul irada yëpp ñu ngi leen di dégg di leen niyu niyub lislaam mu di salaamaaleykum wa rahmatullah kii de Muhammadul Amin Njaay la tudd xaadimul muslimin mu wax ne dafay raddu ku ñuy wax cheikh ibrahim ibnu salih al muhaymid mu wax ne cheikh ibrahim ibnu salih al muhaymid dafa tuumaal Serigne Touba cheikh bii di wax waxul ne Sëñ Tuubaa nee na de waxut ne Sëñ Tuubaa moo ne waxul lool de te balaa tuuma ji mën a dem ci Sëñ Tuubaa dafa ne Sëñ Tuubaa nee na naar bi dafa wax ne am na benn taalibe buy jàng ci Madinatul Munawwara mu indil ma benn enregistrement boo xam ne ci conférence lañ ko defee waa ja doon def conférence ba di wax ne Serigne tubaab moo bind yàlla ba noppi ne ko bu ma ci feeñ est-ce loolu déggu leen ko fii ci Sénégal dellu leen ci internet bi waa ji foo la ko jële bi maanaam kii di wax naar bi dafa laaj ñu leeral ko ba mu ne naññe ndax ñàkkul ne am nañu dëkk Arabie Saoudite doon ay saoudien te dégg nañu wolof te moom nee na mi ngeeg band bi nee na band bi ab nit moo ci doon def conférence moo ci doon def muhaadara waaja moo ne waxul la de waaja moo ne Sëriñ moo bind yàlla ba noppi na ko bu ma ci feeñ ah loolu de man dégg naa ko comme ni ko sa Cheikh Salif mi déggi noonu laa ko déggee Sénégal de dégg naa tamit yàlla si jootal na Sëñ Tuuba dégg naa ko sama nopp bi te ki ko wax si ki ko wax sax sëtam la dégg naa fii yonent mi war naa sant Sëriñ tuba ndax bu Sëriñ Tuuba bindutoon yàlla ba yàlla bindu ko du nekk ngeen ji bindeef dégg naa ko yaa oustaz yow tamit anta tatakallamu bi luxati l arabiyati alayka an tubayyin al dangaa war a leeral dëgg ji ni mu demee dangaa war a wax ne naar bi lii nga wax am na ku ko wax waaye Serigne Touba waxut loolu ndax naar bi waxut ne Serigne Touba ko wax de am na nag lu mu wax waroon na ko bañ a wax ndax nee na yoon wi gën a dangereux ci yoonu tarixa yi nekk ci àddina bi mooy benn tarixa bu ñuy wax tarixatul muridiyya senegal mu ne dafa am benn étudiant bu ñëw indil ma benn conférence benn waay waaja di wax ca conférence ba ne Serigne Touba daa bind yàlla ba noppi na ko bu ma ci feeñ ndax loolu yow oustaz déggoo ko fi ci Sénégal ah man de dégg naa ko dégg naa ko de ba weddi ko ba mu set wicc il faut ñu honnête ni ñuy honnête mooy ndegam Serigne Touba mi am na ñu koy waxal lu mu waxul te ñu mënuñu fa bi yet xeex ak ñoom ba loolu mu ñu ba ko te Serigne Touba waxu ko fu fi xibaar mën a eggati nañu wax ne loolu de dëgg la am na ko ko wax da ngay d'accord ne am na ko ko wax ba noppi comme ni ko naar bi waxe soo noppee nag nga ne waaye loola moo ko wax Sëñ Tuubaa waxu ko ndax naar bi waxul ne Sëñ Tuubaa moo ko wax de li mu waxit ne yoon wi gën a dangereux ci yoon yi tarixa mooy mooy muridiya li li tax mu wax ko mooy am na ku toog ci ab conférence nit ñi di ko déglu mu ne Sëriñ Tuubaa moo bind yàlla ba noppi ne ko bu ma ci feeñ noonu la amee noonu mu ko nettalee noonu la amee fii Sénégal kon kay da ngeen ko war a leeral ne ko loolu de lu am la nit wax na ko fii ci Sénégal waaye ka wax wax ja moom la concerné waaye concerné wul Serigne tubaa soo noppee nag nga wax ko la Serigne tubaa wax si boobaa naar bi moom dina xam ne Sénégal am na ñu fiy waxal Serigne Touba lu dul dëgg nar a jaral nga bind yaa oustaz bindal yónnee ko naar bi ne ko d'accord lii ñu la nett di ca madinatu munawara am na ku ko wax fii ci Sénégal waaye du Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa jóge ni fi ca bu kenn xamul ko wax yàggul daaw jég ko wax su boobaa nag nga indil ko li Sëñ Tuubaa wax naar bi mën naa am di gën a wala de ndax ñoom dañuy wëndee li fii ci Afrique fu nañu di fa dem naar bi bu déggul wolof mën naa am am na saoudien bu dégg wolof de te bu wooyee saoudien bu dégg olof tegal ko bande boobu ñu ko déggee fii ci Sénégal saoudien ba la mu koy wax mooy conférencier bii daa wax ne sëñ Tuubaa bind yàlla ne ko bu ma ci feeñ wala loolu wax ko fii ci Sénégal man de wax dëgg yàlla ni may ni may foppile sëñ Tuubaa bokkul ak ni ko gars di foppile fii daal ku fi waxal sëñ Tuubaa lu dul dëgg dinaa la joxal bi ne ko waxal na la waxu dëgg yow personnellement ba noppi wax la sëñ Tuubaa wax waaye alaawuma nag ndax waxees na ko Sénégal ak waxeesu ko fi wax nañ ko fi allah umma ndax naar bi day tuumaal Sëriñ Tuubaa naar bi waxul ne Sëriñ Tuubaa ko wax dane am na ku doon def conférence ci Sénégal wax ne yaa oustaz noonu nga ko war a waxee nga bind nag nga leeral waa ji xamal ko ne lii de dëgg la nit wax na ko fii ci Sénégal waaye l'islam atewu fi bu islam atewu dañ koy rey ndax ka waxoon loola xalifa général de Mouride bii fi nekk tey di Sëriñ Muntaxa woo na ko muy jooy mu ne ko nag dooma jommal tuubal te xam ne li nga wax rey moo ci yow leeral ko naar bi ba mu leer nañ nga won ko ne Sëñ Tuubaa waxul loolu ay doomu waxuñu ko ay sëtam waxuñu ko te ku ko wax reye ci war waaye état laïque la ñor buñ ko rey ñu tëj ñu ci loolu moo gën a mais wax ji moom am na ku ko wax naar bi waxul ne Sëñ Tuubaa ko wax dana am na ko doon def conférence ci Sénégal wax ne te noonu la ame il faut honnête fi ñu toll nii ginnaaw tawaasula tawaasulaatul ijtimaa yi bari na gis nga raddu leeral da koo gën jàngale leen li Sëñ Tuubaa woote jàngale leen li Sëñ Tuubaa woote ngeen leeral ne lii la Sëriñ Tuubaa woote ndaxam leeral nga ko ba mu ne nañ ne loolu la Sëñ Tuubaa woote waaye fi nga juyoog naar bi rek mooy fi nga waxee ne naar bi day tuumaal Sëñ Tuubaa naar bi tuumaalu Sëñ Tuubaa de daf ne am na ko toog ci biir conférence wax ne waaw naar bi su gisee waajoo ji wax loolu gaa yi tàcc jóg di ko jox xaalis lu muy wax tarixa mu di gën a danser ki seen ci àddina bi ndax seen sëriñ ba ne nañ moo bind yàlla te bu ko waxee ñuy fa biir xaalis di ko ko jox ma ne nañ leen soppeeku moo gën a wóor nañ leen soppeeku moo gën a wóor sàngalu malaan jot nañ leen jàngale yoote suñ tubaab bii te mu jaral suñ bakkan bii lii ñu bëgg a boole ci yoonu mu te bokku ci ñëw génn ko ci sànni ko ci biti leeral Serigne Touba lim mu doon woote naari xam Serigne Touba li mu doon woote naari bu ñu xamee li Serigne Touba doon woote ku si waxatiwu fen ñoo lay joxe bi ne la yaa mën a kàcc Serigne Touba bindut loolu waaye nës nësal moom sottalul dara il faut ngeen leeral li Serigne bi bind te di ko woote waaye il faut ngeen nangu ne lii étudiant arabe yi di jottali foofa ca bitim réew itam di yóbbu ay band di ko traduire niñ ko waxee noonu la amee waaye du waxu Serigne Touba waxu kawka la ko ko wax moom la concerné moo concerné wu Sëriñ Tuubaa loolu moo di xel mu jub su fekkee mën naa nekk xam nga lii naar bi wax képp ku ko gëm ab yéefar nga neexute léegi nag képp ku ko wax te gëm ko ab yéefar nga waaye moom yéefar loowul Sëriñ tubaa de ah man boo dégguma arab bokk mais daal am na benn waay bu doon def conférence ci Sénégal wax ne Sëriñ tubaa moo bind yàlla ba noppi na ko bu ma ci feeñ loolu moom am na dellu leen ci biir internet bi te itam ngeen xam ne Google day traduire olof naat bi bu duggee ci biir internet bi bu gisee bu gisee wala fi waajooju bu ko traduire ci Google mu indil ko ci arab day wax loolu waa ji wax léegi yow mii di wax arab waa ji naar baa ngi lay dégg su demee traduire waxi waajooju mu tolloo tembe ak liñ ko wax mu di Serigne Touba bi li yàlla ba noppi ne ko bu ma ci feeñ Google moom du fen ni waa ji wax la koy Google di di traduire en arabe su boobaa fan la la naar bi teg yow da lay bugg da lay dugal nag ci kàmb gi ndax day defe ne yow loolu ngay défendre da nga koo gëm te yow gëmuloo loolu yaa oustaz li naat bi wax moom képp ku gëm ne Serigne Touba moo bind yàlla ba noppi ne bu ma ci feeñ yow mi ku gëm ab yéefar nga naat bi waxul ne Serigne Touba ab la de ku gëm loolu la ne ab yéefar la te ku gëm loolu ab yéefar nga loolu moom mu ne ci dara li ci topp nag mooy aqidatu ashariya bi ngay wax naar bi naar bi moom salafiste la bis bu ngeen duggee ci domaine yooyu sax kër ngeen di gën a ci yoon ndax moom day jëmmal yàlla di ko toogloo ci bangatul ko tànk di ko wutal bopp ak di ko reetaanloo ak mer ak bég ak wàcc ak yéeg yooyu ñoom noonu lañ gisee noonu lañ gisee aqida te ñun aqidatul ashariya lañ yox ah, yor aqida bii suñ tubaab di wax aqidatul ashariya la bala ngaa gënoon a ji ak naar bi nga wax ko loolu suñ tubaab wax nag mu dégg ko te tuut tuut boobu la cool yi gën a bëri ñoom yàlla dañ koy teg ci bag mu ne daj moo tax daanaka eh, jaru jarutul sax nga koy wax aqidatul ashariya bi suñ tubaab di jàngale mais mënoon nga ko xamal rek ne ko dëgg la loolu am na ku ko wax waaye waxul dëgg rek wax ci jëm fi ndax bu dul loolu naar bi bu duggee google dana ko traduire de te kon dana dellu te su boobaay doom loolu danaan waa jàngi nii moo ko wax google ko wax yaa ngi dégg am na fi ko wax leneen am na fi ko wax leneen am na wax leneen ka fi doon wax naan sëñ Tuubaa moo wax jinne ja ne ko ko ndax man nga maa soppaliku mu ne waaw mu ne ko soppaliku ba mu soppaliku ba noppi mu ne ko léegi eh, demal yóbbu saa jëmm bis bu dee jotee nag nga ñëw dee alma loolu dana ne moom la Sëñ Tuubaa wax jinne ja moom nag moo ca teg ne ndax Sëñ Tuubaa moo bind aras ak kursi yi mooy yàlla mi bind jaam ñi loolu kilifa ko wax fii ci Sénégal bu ko naar bi dugal google mu wax ko ci arab soo ko miimee mu ne ay naa fi wax ngeen nañ waxante dëgg ñi wax toj penc yi nañ ko baax ñi wax tëj penc yi nañ ko baax ñi wax tëj penc yi nañ ko baax